asalaamaaleykum rahmatullah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal moo dellu si di leen siyaare bu baax di siyaare Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ku wér ak mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp ak mboolem xalifa généraux yi nekk ci biir Sénégal gi yëpp ñu ngi siyaare ñëpp bàyyiwun kenn Ibrahima Fall Fall 94 Walf Sénégal nuyu naa waaj diaspora bi yëpp bàyyiwun kenn waa tey nag ñu ngi jëm ci benn plateforme bu ñuy wax TikTok waaw plateforme bi nag defoon nañ ci vidéo waaye chaque jour rek dañ ciy def vidéo bu ñu sañoon ndax li tax mooy dañu bëgg rek nit ñi xam ni plateforme yi nit ñi biñ koy liggéey liggéeyoon ko woon rek ngir nit ñi di ci continuer di fo di fo fo waaw nga xam ni kon euh, am na leneen loo xam ni war nañ ko ci euh, jëmmal di ko ci feeñal muy lan muy li nekk ci sunu réew yaakaar naa comme ni ko yeneen réew yi di defee fu ci mel ni Amérique fu ci mel ni Euh, Chine fu ci mel ni ñun rek bëgguñu ñun rek bëgguñu plateforme bi plateforme bi partout dans le na ñëpp ko bëgg ndax plateforme bi bi ko américains yi di liggéey euh, seeni borom biñ koy liggéey dañ koo liggéeyoon ngir nit ñi ñëw di ci fo waaw euh, nit ñi nit ñi ñëw di ci fo nag lañ ca bëggoon am nañ ko ci ndax ay milliards yi nit a ngi ci biir plateforme bi léegi nag fu ay milliards nit di daje te bañ koy def ngir foo dong la woon gisuñu ci woon ab xaalis gisuñu ci woon dara léegi dem nañ ba indiwaat beneen système boo xam ne ni ñoom ci seen jëm bopp xam nañ ni euh, plateforme bi mën na leen général xaaris bu bari bu weex tàll waaw xam nga nag ñoom chaque jour noon la bu ñuy defar dara dañuy calcul fan la plateforme bi jëm ëllëg lan la leen mën a indil waaw xam nga rek waaw euh, moom créé moo demee noonu en plus tamit ñoom ñoom dañoo am sens ndax ñoom daanaka mën naa ni seen xel bu màccee jëm ci mel nii rek dañ leen di jàppale ñoom moom duñ leen seetaan benn yoon dañ leen di jàppale taxawu leen même bu nekkee ay xale même bu nekkee ay maanaam maanaam daal dañ leen jàppale daal ban xam ni ñoom jàppale nañ leen loolu moom wax dëgg yàlla euh, américains yi dañ koy def waaw léegi nag ñun ñi nga xam ne ay consommateur lañ nekk fii ci Afrique nga xam dañoo bëgg plateforme bu lool plateforme bi moom ñëpp ko bëgg moom TikTok waaye nag wax dëgg yàlla sénégalais yi moom niñ ci mel dafa ëpp dafa mel ni waaye waaye niñ nekkee tamit waaw ndax plateforme bi dañ cee war a nekk nii rek di dof rek di dof ba kañ waaw ndax ñi nga xam ñoo ko créé woon moom ñu koy créé duñ ko créé woon nii rek ngir nit ñi di ci fo ñun nag dafa mel dañoo continuer rek nekk di ci fo waaw plateforme bi nag moom yaakaar naa ne wàllu sutura moom yaakaar naa ne képp koo xam ne ni <laughs> wax na ne plateforme bii di TikTok moom day suturaal du sutura du sutura déedéet du sutura moom ndax plateforme bi tey jii boo bëgg boo dee lekk dara da nga ko euh, TikTok ko mu dem ndax TikTok da koy sànni mu dem boo boo waree eh, bu fekkee tey da ngaa yor oto faaw nga TikTok ko mu dem bu fekkee da ngaa bëgg nit ñi gis la li nga sol ak ci ajo faaw nga TikTok ko eh, nit ñi gis la kan loolu sutura nekkutu fi waaw kan nag nekkul eh, plateforme boo xam ne sutura la moom day xaawi sutura moom waaw beneen bi ci des tamit moo di ñu xam niñ ci nekk nañ ci wane suñu image su réew comme ni ko yeneen réew yi di defee waaw wane ci seen image su réew wane ci xam def ci ay publicité euh, marketing yooyu yëpp gis naa ci xam nga nag wax dëgg yàlla maa ngi wax waaye am na ci ñoo xam nag moom xam nañ dëgg dëgg dëgg dëgg business bi nekk ci biir ndax ñu ko créé woon ñu ngi ci am xaalis te wax dëgg yàlla buñ demee ba man di jël xaalis di ko neexal ñi nga xam ne dañu am ay millions de vues wala ay millions de abonnés kan ñooñu ñu ngi ci am xaalis te bëgg nañ ñooñu li tax ñu leen neexal neexal boobu noonu dañoo bëgg ñu toog ci biir plateforme bi téye plateforme bi bu ñu toogee téye plateforme bi dana tax bu boobaa ñoom dinañ dinañ am li ñu bëgg ci plateforme bi waaw man nag euh, sama application bi euh, Ibrahima Fall 87 euh, Ibrahima Fall activité business muy plateforme boo xam ne nii man maa ko liggéey wax dëgg yàlla ma ko créé indi ko. Euh, bëgg naa nag nit ñi jëli ko Google incha allah rabi xam naa ne bientôt di yàgg mu yóbbu ko ci Play Store bi bu soobee yàlla di ko téléchargé waaw waaw kon nag ngeen xamee ko noonu baax kon nag ngeen xam ñun ay consommateur la nañ jéem a loo xam di ko teg xam nga plateforme yooyu ñu ñuy indil nañ xool ñu ne système yu ñu ciy doxee xaman wala te bañ leen a topp ca la nga xam ne moom la ñu indi la ca bon daal nañ leen ko jox ñun la ca baax ñu jël ko waaw kon nag euh, Ibrahima Fall TikTok saa su nekk. Euh, moom laa bëggoon di indi di leen di leen ko faram-fàcceel waaye tey lii lañ ci indi ba beneen yoon ci beneen euh, plateforme euh, ñu ànd ci yéen muy internet bi ak li nekk ci biir internet bi bàyyiwun dara nag wax dëgg yàlla dañuy wax ci lépp waaw Baye Sall youtubeur ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko siyaar di ko wax ne en avant avance Baye Baye Sall youtubeur moom yaakaar naa ay continuem question réponse la te ku nekk xam ne question réponse ak ni mu koy defee wax dëgg yàlla professionnel la ci jàmbaar la ci royukaay la yàlla na ko yàlla defal jàmm siyaar na ñëpp